tukki le lañ leen remarqué di leen yóbbu benn rëkk ñaari gaar waaw jàpp leen ne train ba de autorail Mburok soo daal di yegg na kon gaar ba ak lu rëy wal fa di ne dama ne am na ci ay militant Pastef ak yu parti démocratique sénégalais waaw yoo xam ne ay nervi yu nguur gi le ñoo leen doon dóor maar di daal dama ne la ba gaañ leen laa la wax eh, Samba waaw yéen a gaa gi ne waaye Idrissa waaw nëbb na waa APR de orange ba démb moom Idrissa e. moom Macky Sall e. waaw nee na gis nga mburoog soow mi le neex na te goloor yaa dana dikk na doftalu cax yooyu samba waaye Idi ñëwul woon ne orange baak marron waaw ma nga mel ni tulleeg ma di ne xaramal mburoog soow mi mi le te dana ñëw na kon daal di renforcer waa kan mooy Gloria président ba day ah daal di nay neexal nag yàq na étudiant yo te rangal na leen yéen nekk ca ISEP bu Thiès ak ca jam ñaajo yéene kaa ngi ne mais ay jàmmaarloo amoon na day diggante opposition bi lee ak nervi yi waaw am na ci ñaar ñoo xam ne kon am nañu ay gaañu gaañu dee ak ñoo xam ne kon teg nañ leen loxo lay laay la la yéene kaa ngi ne inauguration ISEP roogee ci teewaayu Cheikh Omar la day ministre enseignement supérieur waaw sur ci étudiants yooye ak mac yi waaw comme mburoog soow de dama ne lu ci tolloo juróomi milliards daal dinañ koy génne def ko nag ngir wàllum construction matériel ci wàllum apprentissage gala ISEP bu jam ñaajo bi de Cheikh Omar Ana Fadiar ministre enseignement supérieur sur waaye gis nga mobilisation ba day Abdoulaye Dieye waaw daal dinay wane boppam de waa jadee la mu mobiliser waaw waa Thiès nee nañu lii wetuñu ci Abdoulaye Dieye mais day dimbali nit ñi di def waaye ma lay jóob waaw bu doon soo ba dee boo leen dajalee ma lay jóob da leen a dama ne la président Macky Sall kontaan kontaan ba daal di koy woo mu yéeg ca otoom libération yi rek Macky Sall daal daal di ne xam le ne gloria dana ñëw togalu ca mburoog soow ba tribune yéene kaa ne waaye Macky Sall day dem na Thiès de ba ñibbi waaw waaye nag na ko leer ne waa këram yi nga xam ne ñoom la fa bàyyi noo ne xiiroo ŋaayoo xotee ko jubóowuñu la fa bàyyi te amul woon temps sax moom Macky Sall daal di leen dajale ñu toog daal di kon waxtaan ña nga xotee ba maar day daal di laa la wax gars yi ànduñu te li koy mandargaal mooy dem la guerre des pancartes diggante waa réew mi la ak ci mouvement yi nga xam ne dañoo bokk ca moom ku ca nekk yaa ngi naan sa waay la waaye xanaa da ngaa fàtte ña ànd ak dama ne la Macky Sall ña ànd ak moom ca Thiès yëpp booloowuñ nekkuñu benn de déedéet mouvement waa APR waa réew waa kër ca àll si la ñeeg ñeeg patata réew mi ko di yéene waaye yow parti politique yi ni muy doxee léegi ci Sénégal day doy na waar leader yi daal ay xalif politique lañ xalif politique xam nga ci wàllu diine ji ree xalif généraux waaw am na organisation bu fi kii jugee kee remplacé ko ka koy remplacé danañu ko xam wax waxeet rek yéeni kaa gi ne mais xoolal ma Idrissa Seck tey rek waaye lii Idrissa Seck day bettul kenn te gis nga Macky Sall mi waaw la ko Abdoulaye Wade defoon day mais lay dunduloo nit ñi tey gars yi nga ba dara booloo jeex laa la wax mi liñ ba ci rek ñu daal di takk seeni bagage daal di dem ndax dara tiyeetu leen fenn dara tiyeetu leen laa la wax la mu jur nag léegi ay militant amatu fii ay associé politique ñoo fi am conviction amatul ci aju politique bi lée ay intérêt rek intérêt rek sur quotidien coo léegi werante gee xel mu tey mi bari na day ak ñaqare gis ci loi bu bees bi lée wàllum terrorisme Antoine Diome day calmer le jeu nag waaw waaw il calme le jeu nee na fitna yi nga xam ne mën nañ koo gis ci ndaje yi lée mais mënuñ koo jàppee ni ay acte terroriste déedéet waa LDD bu day ci la ko di jaay yéene indi ko du dara lu dul troisième mandat rek dañ ko fay tere box bi ne Abdou Karim Gueye day xurum xaax ak ñi mu àndal waaw dañuy porté plainte kon commissaire ma Serigne Faye mi ñuy doppe ne da leen a torturé door leen ma Serigne xam ne ñoom ñoo ñu jiite tey day ñooy les plus grands violeurs des droits humains du Mari Sagna waaw nee na li ma bëggoon a bi day continuer xurum xaax la doon nervi ba pare d'accord di def nag liggéey bu salte bi la le sal bu Sonko Seydi Gassama Amnesty ci yéen kaay gi waaw nee xam nga noonu kilifa yi dëgg suñu dirigeant seen noonu tey ji lee mooy activiste yi ñoom diggante politicien mën na ñoo def combine saa su ne seen problème kay xurum xaax la Guy Marius Sagna Dambo Clédor Sène moo tax ñuy jéem a yàq seen der noonu naan dañoo tayal ay tapalekat lañ nangu ñoo dem liggéey patiti patata le quotidien yéen kaay ne njiital yaa naa maar woon day Fadel Baro daal di nay samp mouvement am jàmmi Kaolack ndax dam mu nañ tàyyi nañu ci politiciens yi lé ngir élection locale yi di ñëw très bien Fadel Baro na ngeen commencé nañoo taxawal ay cellules yàgg na yéen kaa ngi Madiambal Diagne ateli ko atu deux baa ngokk garde des sceaux ministre de la justice day waaw daal dinay joxe ndigal ngir ñu topp nag magistrat bi la di Souleymane Teliko Samba waaw Souleymane Teliko ci sursa nee na man day maa ngi toog di xaar ñu bind ma Dakar Times ne xeex wàllum inondation yi diggante Pikine ak Guédiawaye waaw xaalis ba ruq-ruqan yaat réalisation yi ana bagaas yi yéene kaay mu daan mi ne xeexum pétrole ak gaz punkal yi nekk ci àdduna bi Macky Sall mi de ne daa commencé di liggéey ak waa Moscou di waa Russie gale Vladimir Poutine waaw loolee nag Luc Michel ci boppam moo ko wax dem naa ca lamb ja suñu lamb ne Siteu ak Ousmane Sow day premier août bi le super ndajale de ibon waaw alaaji ngañ ngaañ ah nee na diggante Gris ak Abdou Diouf day ëllëgu phase 3 bi fi mu nekk nii moo taxaw de ëllëgu Gris 2 la de Arona Sall entraîneur écurie Waalo nee na diggante Abdou Diouf ak Gris 2 dana mit te dana saf saf tey roon Sall <laughs> xaw diggante Abdou Diouf ak Gris dana saf de waaye ak lu mu saf saf saf saf saf saf saf du saf ba gën a saf suñu pétrole bi ñu commencé ngawti ngawti moo tax suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree mën a la